Euh, ci tënk li nga xamante ne moom moo ñu fi dajalee mooy euh, depuis mardi dernier ñu ngi foon di def benn liggéey bu nga xamante ne le président bi moom moo ko initié muy li ñuy wax euh, dialogue pour réformer la justice bi mu ko présider mardi ñu def liggéey commission pendant une semaine mardi ba mardi tey et que ñaari commission lañ mettoon en place commission benn bi moom moo doon war a liggéey ci réforme beneen commission bi moo waroon a liggéey ci modernisation commission bu nekk mu amoon ñaari sous commission pour que ñu mën a def liggéey bi mu gaaw et que mu mën a yemb bi ñu paree nag ñu compiler lépp ba tey moo mooy li ñuy woowee cérémonie de restitution bi. li nga xamante ne mën nañ ko cee jàpp mooy dafa am ay recommandations yu nga xamante ne dafa génn moo di dañ ne le procureur de la république ay pouvoir am il faut que ñu wàññi ko. wàññi ko ba nga xamante ne pour mu yóbbu kaso nit ñi comme nam ko daan defee dootul yombate wala dootu ko sax mënatee muy benn. Euh, ñu ut benn juge des libertés et de la détention nga xamante ne moom mooy nekk entre le procureur et la prison nga xamante ne procureur bi nga xam moom mooy le directeur euh, de la police judiciaire nga xamante ne mooy encadré garde à vue et consort moom si boppam du mën a nekk juge et partie encadré garde à vue ba pare jëlaat nit yóbbu ko kaso joogu jël dossier bi yóbbu ko naa des flagrants dañu ne loolu il faut ko mu dagg nga xamante ne moom du amati possibilité envoyé kenn day demande envoyé kenn prison day demandé juge de la liberté ou bien juge d'instruction bi apprécier ndax dañu yóbbu kaso wala du ñu yóbbu nit kaso muy loolu muy benn ñaareel bi également que procureur du amati possibilité tënk juge d'instruction bi parce que tey gis nañu manifestation yi nga xam ne dafa amoon ñu bëri ñi nga xam ne dem nañ kaso procureur dafay viser yenn article yi te bu ko viser rek juge d'instruction bi mënul def lenn lu top li nga xam moom la ko procureur wax te loolu nag ay textes ñoom ñoo ko consacré parce que article 139 code de procédure pénale daf ne procureur su viser article 56 à 100 du code pénal ak article su demandé mandat de dépôt juge d'instruction amul lenn lu mu mën def lu mu suivre ko ci loolu nga xam ne da koo bëgg loolu nag ñu ne loolu il faut que mu dañ beneen bi également dañ ne ñetti pouvoir la ñu am pouvoir exécutif pouvoir judiciaire ak pouvoir euh, législatif ñetti pouvoir bi dañu war autonome et tey jii boo xoolee ci suñuy texte le ministre de la justice bi nga xamante ne ci pouvoir exécutif la bokk am na possibilité demande procureur bi nga xam ci judiciaire la bokk mu ubbi enquête contre Massamba wala ma Mademba mu yóbbu ko kaso te bu ko ko demandé bindal ko ko article vingt cinq à article vingt huit bu code pénal daf ne le procureur dafa am obligation mu def loolu. loolu nag dañ jàpp ne dafay nekk lu nga xamante ne du du participer à l' de la justice te lu nga xam ne day tax ñu ne. Euh, pouvoir exécutif bi ba léegi dafa am loxoom ci pouvoir judiciaire bi loolu nag ñu ne léegi il faut que mu dañ te bu dañee nag procureur bi mën a am la plénitude de ses pouvoirs et nekk avocat de la société bi nga xamante ne moom la war am te mu am ay prérogatives yu nga xamante ne code de procédure boppam moo ko jox donc loolu nekk lu nga xamante ne ci recommandation yi la génn grosso modo daal li gars yi demandé mooy il faut que ñu réformer code pénal ci ay yu bëri réformer code de procédure pénale ci articles yu bëri réformer code la famille ci yenn articles yi def ba nga xamante ne également conseil supérieur de la magistrature bi nga xam mooy saytu carrière magistrat yi ak seen discipline ñu organiser waat ko ba nga xamante ne ñoom dinañ am indépendance bi nga xamante ne bëgg nañ ko et que yi mën ee gis seen bopp ci seen justice. dafa am lu nga xamante ne ñëpp d' accord am na yenn nga xamante ne li ma la wax noonu pratiquement ñëpp ci mais am na fenn fu nga xamante ne dafa am ay divergence notamment si teewaayu président de la république ci conseil supérieur de la magistrature am na ñenn ñu ne il faut que mu génn conseil supérieur de la magistrature comme France comme ni mu nekkee France actuellement ni mais ñu bëri dañ ne Sénégal il faut pas que ñu am gouvernement des juges il faut pas que juges yi ñu jox leen pouvoir bu nga xam ne après ñoom dañuy administrer wu librement et que ñoom seen bopp soo moytul liñ ci doon bëgg sax nañ am effet contraire que dañ ne pouvoir pouvoir koy arrêté et comme suñu constitution daf ne le président de la République moom mooy la clé de voûte des institutions institution bu nga xamante dafa sooxe président moom mooy ki nga xam moo ko war a corriger et que le président moom mooy nommé à tous les postes civils et militaires constitution moom moo ko wax jaadu na ñu bàyyi président moom mu continuer nekk ci conseil supérieur de la magistrature pour que liggéey bi mën a ñoŋ maintenant bu fa toogee également il faut ñu changer un certain nombre de choses mooy conseil supérieur de ne magistrat de droit yi ñoo ëpp magistrat élu yi nañ fexe ba nga xamante ne magistrat élu yi ak magistrat de tolloo ci biir conseil supérieur de la magistrature bi beneen bi également ñu fexe ba ministre de la justice bi nga xam moom mooy def proposition yi pour magistrat yi ñu war a nommer ñu dind ko ci moom nga xamante ne dootu mën a defati proposition bi ñetteel bi mooy le conseil supérieur de la magistrature mu nekk organe bu nga xamante ne organe bu délibératif la mooy day délibéré jël ay décision et non pas mu nekk un organe un organe consultatif et ñeenteel bi mooy yenn poste yu nga xamante ci justice bi la au lieu que euh, voilà euh, de la justice di ko proposer mu nekk appel à candidature ñu ne pour nekk procureur de la République dañoo dañuy ubbi képp ku nga xamante ne am nga grade bi am nga connaissance yi am nga probité morale bi et am nga teef bi nga mën a déposer après mu am euh, conseil supérieur de la magistrature daal di ñëw xool ñetti profil yi nga xam ñoom ñoo gën ñu proposer que le président moom mu jël ki nga xamante ne moom moo ko ci neex mu nekk procureur de la République wala doyen des juges wala benn. Euh, en tout cas occupé benn poste juste bu nga xamante ne jàpp nañu euh, poste bu stratégique la loolu mooy li nga xamante mooy moom moo gën ci yi.